ànd boobee yàlla na jëm kanam ñi ngi leen di béggee di kontaan ci yéen bu baax a baax juróom benn fan ah, moo des ci li nga xam ne mooy coupe du monde bi nga xam ne ma ngay amee fële ca réewi nga xam ne ah, mooy Qatar nga xam ne daanaka gol ba la ñu ko gën a mën a ah, tudde loolee di nekk coupe du boo xam ni équipe yëpp ñu ngi koy waacaat waaj li nga xam ni mooy coupe du monde boo xam ne bu am solo lay doon rawatina équipe bii di équipe bu Sénégal nga xam ni waajtaay ga am na solo lool ñu dikk ci balaa ñoo dikk ci Sadio Mané mi nga xam ni war naa am test médicaux yoo xam ni war na koo belliwaat équipe national boobee démb euh, fee ca doxa def nañ fa benn entraînement boo xam ne daanaka entraînement boo xam ne euh, complet la maanaam ñëpp ñoom ñi nga xam ne euh, bokkoon nañ ci daje moomee fekke nan li nga xam ne mooy entraînement ba def li nga xam ne mooy seen i def ay tic tac ak ay wadd wadd yoo xam ne dana dana tax ñu gën a nekk li nga xam ni mooy euh, au niveau ci li nga xam ni mooy doorteel gi nga xam ni ña ngi koy waajal coupe bi man ba saajo Mané euh, moom la ni dikk moom mi nga xam ni ma nga ca euh, Bayern Munich ba léegi nii continuer di fa def loo xam ni ak noppaloom noppalu goo xam ni daanaka ma nga ca keru sedd ya di jël temps pour mën a am récupération boo xam ni bu mucc ayib lay doon waaye goney Bayern yi du fëggaat nañ ci taabal ji beneen communiqué buy wax ni moom mii di Sadio maane ci dimanche bii ci fajar gi ci ci kattanu suñu borom moom lay def beneen test médical boo xam xam ne ñu gën a xoolaat yaramam xoolaat tànk bi nga xam ne ah, daanaka moo xawoon a nagam ah, ba xam nu nu koy naggamtee loolee bu fekkee jàll na résultat yi génn ci sensé bu ko defee ñu xam gone gi ah, kañ la war a mën a dikkaat fii nga xam ne moo nekk Qatar loolee tamit sénégalais yëpp war a sikkimu dolli ñaan ci test boo xam ne war na koo def dimanche ci mu bokk ci yu yi nga xam ne daanaka bu ko defee moom fi mu toll nii mën naa kam jaañu wuti fële nga xam ne mooy Qatar Qatar googe nga xam ne ña ko fay xaar bari na ndax star yi nga xam ne ñoo nekk ci coupe du monde bi Sénégal bokk na ci staaram bi nga xam ne mooy Sadio maane moo ci gën a taxaw ñu bàyyi